du nuyu ñëpp nag du nuyu suñu Seynu waaw góor sunu xol sedd na li nga wax dëgg la maanaam jàpp goog nga jàpp suñ seexu naa jàppale ñu ci dañ cee bëgg ndax moom daa bokk suñu baayam tuddee Sëñ ndax baayam am na juróomi Sëñ Tuubaa Cheikh Abdourahman am na juróomi Sëriñ Tuubaa waaye seexu naa nag daa bokk ci ñi bàyyam tuddee Sëriñ Tuubaa waaye mu doon sunu mag doon nit ku baax doon jàmbaar kon sunu wëllëre ga nangu nañ ko it te bëgg nañu it ci xasida gi ndax yéen ñiy yëkkati xasida Sëriñ Tuubaa yi kenn amul seen fay kenn amu ko kenn ndax li gënal sëñ Touba ngeen di def li gënal Cheikhul Khadim moom ngeen di def kon yéen kenn mënu leen a fay ku tàntoon ay tànt yu mag dajale milliards yu bari di leen ko jox du tax mu fay leen bi nuyu sëñ Massamba sëñ sëñ Mor Massamba moom ndeysaan dama koy déglu bu bëree bëree bëri bëri dama koy déglu lu bari ñoo ngi lay siyaare bu baax li tax ma dag kàddu gi nag damaa bëgg ñu déglu ko sëñ Dame Sakho it ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax a baax a baax su ma sañoon damay jël mikoro bi maanaam kenn ku ne may tudd aw turam siyaare ko ba nu xam ne ñëw gi ma ñëw seen biir daf maa neex waaye nag daa am lu tax ma dog kàddu gi may nuyu magum talibé yi nga xamantene ties gi ñu ne ñoo fi serif abdourahman Fall Tilala te di ci jital jëwriñ allah ji nga xamné ne moom la sëriñ bi jital ci njabot gi mu doon ko xamantene ma ngi sédel mbokki talibé ak njabot gi ñep né lak na ngeureumal serif abdourahman Fall Tilala ak isa ñom Baye Fall ñi ko andal nga xamné ne leen gis ñoy and ak mbokki talibé yi am na nañu ngërëmal sëriñ bi waaye nag sëñ Moustapha mii moo waral ma ñëw cees daanaka démb ci guddi dama tawat waaye dalluwuma ba léegi dama ne dama ne bu bu tombee woon nag ma nekk hôpital damay jug ci hôpital bi wuy ko xam lan moo tax loolu lenn rek war naa tax ma fekk si ko mooy gëm gi mu gëm sëriñ Touba te muy dëgg sëriñ Touba ci boppam du ay caaxaan Cheikhul Khadim déedéet murit bu ne sax moroom mu murit war na laa jaral lu ne ngir sëriñ Touba. li yonent bi jaraloon Serigne Touba kenn jaral ko Serigne Touba barki dem maa ngi koy wax. ma ngi ne tay la neex rek ku ne naan seigne touba sa morom la wala nangam ak nangam dede dem bi fi touba bi nekké kenn sañ ta wax Ahmadu rek a waxon mom cheikhou khadim lamu waxon ba touba bi yobbu ko bam koy wax ku ko waxon do fi dess dañ ne fa mbaxane ben bi mbaxane rek ka fa am ñoom bi ñu àndeek Serigne Touba dootuñu gis ku mel ne Serigne Touba moo waral jàmm ji ak noflaay bi du kenn Serigne Touba rek la. ngeen bëgg annonce avant ngeen am cant bëgg mu jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma wóote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc